mais kon mën nañ jàpp ne ñi may laaj man. parce que mm-hmm. li ma lay laaj yóbbante la. C221 mu ngi dund. et yéen a ngi waaj. loo tey la gën a dund tey la gën a dëgër bu doon ñaari tànk la yor xamal leen ni léegi yor na juróom benni tànk. te ñi si nekkoon kenn manqué si ñëpp a. ah gisaguma ko ci manqué de. ñëpp a ngi woy di ko gëm. ñëpp ngi woy di ko gëm. ñi ko gëmoon xam nga nag boo wootee ñëpp ay ñëw ku nekk li ko indi man sama bopp nag laa xam. si ñu ñëwoon am na ñu retiré wu. gisum gu ma ko de. alors loolu dañuy may ñu ñu soogu ci beneen waxtaan parce que loolee gëm naa ne dina am liaison ak C221 mu di affaire Amir Abo bi xew léegi ñu tudd ci seen leader di seex Yérim sekk loolee mbaa dem ba taachal turu tour tour tour mouvement bi parce que lañuy tudd ci mbiru abi Abo euh, Amir Abo Mbacké Mbacké mu mel ni mbiru dóor la mbiru luubal la mbiru escroquerie ñu tudd ci seen leader Yérim sekk dem ba seen ko ci ab vidéo loolu du taasal liggéeyu C221. non non vidéo vidéo ak mbir mi nu mu demee carrément bu dee mbir moom moom yoonam da cee lu tax. mbir moomu kay Atépa Goudiaby lañ ci war a mën a maanaam bu dee ak njublang ak njuuj njaaj. Hmm. Atépa lañ ci war a tudd ko Cheikh Yérim Seck. mais fa Atépa feeñ fa la Cheikh feeñ. waaw dégguma la moo tax di defal promotion waa xamante ne nee nañ dóorkat la. déglu ma Atépa Goudiaby laa la wax bu dee waaja ko ci. xam man mën naa mais fii Yérim laay wax. muy seen leader charismatique xaaral wax la ki ko tuumaal ki ko tuumaal. doo ma tontul ci Yérim ba pare yow ki kan la Babacar Touré la. koo xam ne tàmmul wax dëgg. kooku nag ay waxam waruñu ci sori quand même. ah Babacar a wax fii gars yi dañ see. muy lan teg muy lan ak lan. bëri na du dëgg moom. surtout ci mbiru Adji Sarr bii dem lu mu ca wax du dëgg. mbirum Adja lu mu ca wax du dëgg. mbir mii li mu ci wax du dëgg man Atépa Goudiaby bi muy woo Cheikh Yérim Seck. Hmm. man naa ngi toog téléphone bi seex ci ci oto bi da koy amplifier daf dañoo amoon fu ñu demoon bay ñëw bay dugg si Dakar mu woote moom moo wax seex ne jàpp nañ Amir moom moo wax seex ne pour mu wax booy gelongal yi nañ porte plainte Amir parce que Amir nag ñi mu wax ne da leen dóor dafa bari bi mu coupé matul deux minutes am benn xaritu Amir bu woo seex ne ko jàppale ma ci sa booy yi pour ñu bañ a porte plainte kii Amir. booy seex yi mooy kan waa. mooy waa gelongal jàpp ci ñu bañ leen bañ ko porte plainte en attendant ñu régler problème Atepa après mu dinañ régler problème automatiquement bu ñu paree Matar Diop suba teel a ngi may dégg moo woowaat Cheikh Yérim pour di ko informer affaire bi Cheikh yëgu ci dara Cheikh wala mu ngi mel ne tey man ma boole la ak seen bàyyi leen ngeen dund ay at wala ay weeri weer man yëguma yéen a ngi mu ngi neex yëguma dara yëguma man maa ngi rek ci sama business yow nga xëy seen am ak yow problème nga ñëw nga ne ma non yow la mais boo ma ko waxee ma saaga la dama naan la ba muy neex Atepa bi muy def bi muy tàgg Amir boobu anam kon mi ngi neex ah dafa metti rek te moom léegi bi muy woo Cheikh Yérim léegi woo bi pour lan la woon lu tax woowul seex ne ko yow yaa ma boole kii ba mu escroc quand même mais man dégguma Atepa wax loolu quand même kon Babacar Touré bu mu nangu Atepa di ko saraxe bu dee moo ko wax loolu bu mu ko nangu. na am crédibilité tuuti. mais ni nga raxasee Yérim est-ce que keneen mënu ko raxasee keneen parce que boo xoolee Yérim Seck ni mu taggee waa ji ci vidéo bi donc ñu gis ko dëgg ko mu nekk yëkkati ay kàddu yoo xamante ne daanaka peut-être mën nañ jàpp ne nuroo nag euh, ki nga xamante ne moom mooy kàddu yu ate Atepa yëkkati donc. loolu mën nañ xam nga man damaa fekkee. man problème bi yëgu ma woon nu mu demee damaa fekkee Atepa moo. ngeer <laughs> yaa ngi fépp. parce que sëñ Saliou moom man maa fekkee. waaw bi minute yi fi ñu jóge woon. Mm. man ak Cheikh Yérim sekk ñoo demoon seeti Ahmed Ndoye si bi xotaan ak Cheikh Thiam bi ñuy dëpp la kii woote bi ñu bi ñu woote sax ñu ngi biir si waxtaan di dëpp di génn. waaw man li ma si jaaxal mooy Cheikh Yérim mi ñu gis ci vidéo muy tagg waaj. waaw d' accord ma ne la moo tax man la xamante ça n'a rien à voir ak complice man tey yow xam nga nag xamoo la man donte xam naa la ci wax lu la neex mais xamoo ma la jubati <laughs> pourtant mën naa la boole kenn man ñaata nit a ngi fii ci presse bi dama leen di jël boole leen ak nit ñuy liggéey moom. Hmm. ñuy liggéey ñoom du jeex du xaaj nag. mën naa la limal boo yu bari nii dama damay gis ku bëgg euh, journaliste wax ma ko ma contacté la yónnee la numéro am ne la xoolal diw mi ba xam seen mi sama seede la ci. Hmm. yàgg naa ko laaj ay numéro mu jox ma numéro kenn ma boole ko kenn. Hmm. mais man pare naa ca di quand même mais Atepa déggoo ñu ne la Amir jotoon na jox Atepa xaw ma 10 millions xaw ma dégg naa am ko koy wax. Hmm. ci benn business bu ñu seqoon ba mu ko joxee Atepa Atepa wax na ko Cheikh Yérim ko woon. Atepa bi muy defar plan boobu pour pour pour kër buuru buuru buuru euh, saw ñee. est-ce que Cheikh yëg na ko Cheikh yëgu ko ni kon léegi seex nu mu ci mën a dugge yow li nga seq ak waa yëpp seex moom xamu ci dara. mais est que yoroo comme taxawaay. waxuma li ngay wax de déedéet maanaam li nga ko jiiñ ne day setal. déedéet li ngay wax waxuma ko dama ne man damaa man damaa def yu Babacar dama ne ko man Atepa bi muy woote maa ko fekkee. Hmm. te Atepa loolu yëpp bi mu amee seen diggante moom yoonam newu ci de te Amir PV d'audition yi xanaa gisoo ko. <laughs> Amir moom nee na moom seex wax dëgg yàlla moom yooyu yëpp seexu ko moom moom nee na sequt ak dara seex ci yooyu noonu affaire yi kii noonu moom mu munul dóor seex parce seex nante la ñoom waa Gelo ngal la joteel ñoom ñoom Moussa ak ñoom kii yàlla na yàlla yërëm ña ca dem ak Matar Diop suba teel ak ñooñu yeneen gaay ak Atepa mais seex moom lam yam ca digganteek moom mooy liggéey pare. yow ñi ki nga séq Atépa mi bi léegi Atépa bi muy tàgg musa bi muy tàgg kii nag bi muy tàgg nu mu tudd sax. Amir hmm. kon boobu mi ngi neex. xam nga yow xam nga mais mais yéen xam nga yow xam nga xam nga Atépa li def nii lu muy nuróol. Hmm. ñu may la jabar sëy bi neex ngay sëy sëy bi neex problème kenn déggu ko. waaw ah. mais sëy bi commencé naqari nga dem ne kan ma mayoon kan yaa ma ko mayoon loolu mooy wax ji. Hmm. d'accord doxalal après dinañ dinañu gën a gën a xuusaat bu baax a baax ci ci wàll woowu xam naa ne peut-être doo doo doo lool ak ak ak la ngay jiiñ Babacar Touré parce que yaa ngi jàpp ne dafay raxas ki nga xamante ne moo di Atepa yooyu itam gis nañ taxawaayu parce que tey par exemple. mais attends Babacar tegul sa loxo dara. lu dul ñaar ñi xamante nañ kon kii ci complice la loolu loolu doyul. Hmm. da ngay relater maanaam bi ñu joxe xaalis bi diw fekkee na ko pour nga nekk complice ci xaalis wala nga proposer wala nga jël joxe wala nga influencer nit ki pour mu joxe wala nit ki tàggu la nga ne ko joxeel. xam nga loolu mooy complice tàgguwoo ma yëgaloo ma yow daal ba ma la booleeg moom ngeen di liggéey mooy neex yëgu ma nga koy tàgg naan noo or la kii jamaa la kii ku ba yow yëgu man yow yëpp yaay man man doxe naa sama yeneen. nee naa la seex keroog lay doog xam ne Amir daa dóor ñi jikko boobu bu ko xamoon ci moom kay xam nga ne loolu du du seq ak moom yooyu mais keroog la ko xam mais seex bi mu décoré sa téléphone ñu yokk ko non dafa tiit. da ne kan Amir xaaral. xam nga nu ma wax da ne kan Amir. Atepa ne ko waaw maa xamee na Atepa Atepa laa la wax mu mu mu bëggoon na booyee porte plainte Amir. booy gelo booy gelo ngali mais booy gelo ngali seen benn copain mu kooku moom xaw ma turam moom moo woo seex ci saa si ne ko pour naan na ñaan. naanaam benn copain Amir moo woo Cheikh ne ko ñaanal ma booy xam ma booy bu ñu porté woon plainte day gën a garaaw léegi nag moo tax Babacar Touré dégg ko ci vidéo mu naan ko Amir tooñ na nga ñëw porté plainte di di woote wu naan na ñëpp ñëw xam nga loolu loolu jikkoy sax jullit jullit sax du def loolu cest à nit am problème ngay wëri ñeneen pour gën a yokk problème bi xam nga loolu yëfi yéeféer la loolu du yëfi jullit jullit du def loolu de léegi nag Cheikh jeu boobu lañ ko bëggoon a dugal. Hmm. c'est-à-dire que comme am na influence ci booy ay booyam lañ. pour mu wax leen ñu ñëw yokk ci xar mi karab léegi nag seex ci la contact xam nga ñaar ñi décédé nañ kenn ki moom fi des gelangal si la contacté kenn ki ci saa si waxtaan ak moom wax ko li copain bee wax. kon mën nañ jàpp ne ba fii nii nii gelangal porté gul plainte. dégg gu ma ko def dégg gu ma ko te du ko def. parce que kee mu ngi ci poro te kee fay na adhé ba sax wax ci sax léegi wax may fay na ko xaalisam. mais problème mooy. yow ameel na ko la fay na léegi fi ne nii lu ci jar kaay leen porter plainte. non problème bi mooy. ni ñu décrire Amir Abo. Ah. c'est-à-dire da doon defar image am pour mën a nax ay nit. bokk na si ñu ñu tudd ma ataam moom laa foofu laay waxee. bokk na si ñu ñu tudd. ñi fi nekkoon ci régime mu Macky Sall président Macky Sall bi mu fiy nekk. Ah. léegi tey bu fekkente ne ab Abdou Nguer nekk na ku ñu xam ku am influence. mu benn escroc jóge fële lëkkaloog moom Abdou Nguer raxas ko ba mu set ne kii kat ko jubla xaritu buuru màkk bi la nangam sàngam ba nit mën a jàppandu ci loolu gëm ko. Ah. mais loolu est-ce que dina tax ñu mën a seetal seex Yérim Seck. mais ñàkk a mën a seetal nekk xaritu buuru màkk te yow te jubadi jubadi gi kay la nëbbu. waaw moom laa wax. ma jubadi gi la nëbbu ma ne est-ce que waa ji utiliser wu ko. jubadi gi la nëbbu pour ma ma ne cas bii daal man daal na ma fi. Hmm. boole naa fekk nit nit mu jël alalam. mais man maa dem pour c'est un gendarmerie porté ko ñu jàpp ko ma seetal sama der dem sama yoon mais booba nag dafa fekkoon maa waxoon waa ji jox ko man maa ne woon waa ji jox ko xaalis bi. Ah. mais dégg nga fenn yiri ñu ne yiri ma wax ne kii na ko jox Atepa Atepa moo war a bàyyi baabakar mi muy fooye Babacar nag moom. Hmm. moom moom comme moo nangu loolu garaawut moom moo nangu na nekk booy Atepa rek lu Atepa soxla bu ko munta def defaloo ko ko wala lu Atepa du ko ko dëgg. est-ce que du journaliste bu def liggéeyam ba. am xibaar ban ban journaliste. waaw ah, Babacar Touré ak Atépa nga may ay journaliste loolu dépassé na journaliste ak lii mag ak rakk la kay loolu nekkatu journalisme. Atépa ko somb Babacar li ñu gis mu def am parce li mu wax du dëgg nga mu du dëgg xam nga Yérim mooy mun du nekk di porter plainte ak Babacar di dépassé wàcce boppam. ah mais Yérim tamit taskatu xibaar la. am ay plateforme yu mu a waxee tamit yooyu du ko nekk nekk di kii PV de bi rek. wax na ne yéen a ngi tubaab ne di rien consent. waaye PV de mission bi wax na. abo mi ñu auditionné ak Adepa miñ ñu amul kenn ci ñoom ñaar ku tudd Yérim bu dee benn Samba Boye yor seen YouTube am nag di ko tudd euh, Yérim du ci tontu quand wax dëgg yàlla yow yéen ñaar ñi ko séq. Hmm. amul kenn ci yéen ñaar ku wax ne man maa def nangam d'accord. oui kon léegi man lu ci sama yoon. mais dayo Yérim est-ce que waroon na ko mën a may tamit. non Yérim tudd ci ci ci genre mel noonu tey jii man xam nga man Yérim. wóolu na ma wóolu boo xam ne mën na maa boole nit. parce que loolu laa ko wan nit ki li mu bëgg nga xam ko rek lay wan nag Mohamed. Hmm. man am na jikko yoo xam ne xamoo ko ci man. am na jikko yoo xawuma ko ci parce que da koy nëbbu. léegi pour ànd bi yàgg faaw am ku nëbbu jikkoom. Hmm. jikko ji nag fa muy feeñee bett na ma baatu bett na ma lu ko indi nëbbu sa jikkoo ko indi ku wane woon sa jikko doo bett kenn. bett na ma joo dégg nëbb ji koo ko indi. mais dootuma ko defati ci boo dégg mag di ko wax. jëf ja taxul la topp ca jëf jaa tax duma ya mais ak li li la concerné yow jàppoon ne da nga teel a wax trop teela a setal yërim. non li ma la wax moo am li ma la wax le contraire du ci am leneen mënu ci am mënu cee xew. damay ragal la daloon dalaat la de. non responsable pénal c'est hmm. individuel. lu wér te wóor maanaam bu ñu xuusee ci biir enquête. li ma wër li ma wër te li ma wër su ma la booleeg nit ne la ku baax la ku jub la te ba ngeen di joxante xaalis fekkewu ma waxuma la jox ko yëguma tinu ma bu la dóoree perte nga hmm. même bu ma kompaloo moom yow ñàkk nga parce que man waxuma la jox ko néew ma la bu ko jox sama yoon newu ci yaa ko jox sa xaalis yaa xam da nga ne soxla naa gaskat rek nga jël gaskat waaw nga jël gaskat yow yaa gaskat bi nekk ngeen ay ati at yëguma ati a ngi def ah, mu ngi doon neex kenn yëgu mu ngi doon neex ba yow am nga fi marché boo mën a def xaw ma benn plan huit cent millions yow encaissé nga gaskat boobu benn marché boo xam ne ñu ne kër buur roi Salman la xaw ma yow man yëgu ma seex bi mu ko yëgee daal tëgg gémmiñ gi di bi ñu ko waxee ne lu mel nii maanaam bi koppar génn na ci moom xoolal ci saa si dane ma mais booy mais booy affaire yi garaaw na de nee na man ñii man seeni affaire man musuma ci xam dara te waaj booy bi tam ni mu ni mu seqee waa gelongal ñu ne da leen a jox benn programme boo xam ne baaxul. Hmm. pour ñu liggéey ci ñoom problème yooyu la ak ñoom. aboo daal ndante la moom tamit ndaanan dëgg la. <laughs> Matar Diop suba teel tamit man xaw ma lan la joteeg Amir moom ay mbiram moom it ma ngi ko dégg ma nga woo Yirim di ñaxtu. Hmm. loolu la parce que da nga di nga am sa waay wax dëgg yàlla mais da lay nëbbu ci koom. d'accord mais loolu nag ça ne faut pas dire ngay jël ay nit. Hmm. di leen dox diw nangam diw man la ci diw man la diw man la diw. man cas boobu nii nii ma lay wax rek am naa ko kaa boobu ma lay wax nii boolee nit ak nit am naa ci kaa boo xam ne ko ki ma boolee ki ki ma ko booleel ay huit millions la ko dóor. parce hmm. waaye xam nga la ma ci dimbali. Hmm. ba mu koy door yëguma ko. moo tax dañ ma caa tudd rek ma saaga leen looloo ma ci may jàmm te waa ji da doon wax bu jógee États-Unis bu ñëwee day yóbbu kooku ci yoon ma ne ko man de seede rek laa la mën a defal seede mooy maa leen boole te lii ngeen ma wax la de sama yoon newu ci man nga man noonu laa joobe. dama ko waxoon waa ji dama ne ko. waaw waa C221 ak dama lay wax am man baax rek <laughs> la ngeen bëri bëri ay kii de. xam nga baax nitu nit ñi <laughs> soo gis kuy kuy liggéey lu dara rek nga ne ko kaay am naa ko koy liggéey ah. man apporteur d'affaires laa da ngay hmm. soxla dara nga wax ma man la ah de mën na ko hmm. soxoruma quand même ma ne Mouhamed de mën na ko tee nga koo woo falaa yam de jox la numéro bi nga woote yéenay waxtaan seen prix yéenay waxaale muy neex may dem man laajuma commission sama yoon ci waaye bu cóolee hmm. bu ngeen fa joxante dara te yëguma ko bu ngeen ñëwee ci man yéen ñaar ñëpp laay boole ok waaw man nii laay joobe man ragaluma boole kenn ak kenn waaye nanga nga jël say matukaay ba boo joxe sa alal na nga xam ci li nga koy joxe bu dee sama loxo bii nga ko teg nag yow ñëwal laaj ma ko après. dafa mel ni yaa ngi tontu indirectement coowal fukki million yi. non coow yëpp laa la wax man loo ma jox rek. Hmm. ma téye ko ku ma ko jox dina ko goqi. dina ko goqi man maa raw Ousmane Sonko ci opération gox. fukki millions yi jotaatoon ngeen si. no loolu c'est histoire passée rek la daal ba mu. mais temps na de lu ci xew. maa ngi ciy dégg ay ay mbir yu kii de. mbir yan kenn kenn waxu ci dara déggoo ci dara bàyyi sa dof dof lu bi sérieusement maa ngi ko ciy dégg. bay dégg ay audio ak yeneen yi ci aju. non non loolu loolu loolu du bokkut ak loolu de loolu c'est autre chose. waaw bu kii ñëwee mu nettali la ko. yaa ngi may wan sa montre bi. waaw bu kii ñëwee ne la ko nettali nu mu tuddati sax sama waa ji Aliou Badara. Euh. keroog Aliou interpellé na ma wax ko ma ne ko loolu c'est ah leneen affaire la. ok waaw. bokkut ak loolu. non non bokkut ak loolu loolu moom benn femme la bu newoon ci situation ma ñëw di ko conseiller. Hmm. moom mu mu mu ma. waaye sëy ba tas na. ngeer bëri ngay ruq ngeer man damaa bëri